nekk ci grand place yi di jëw nit ñi rek eh, di tek seen der lu ñaaw rek dong dong ngeen fi nekkee eh, mais yeen du ngeen ay julit la mais yeen nit ñu bon ngeen la wax kan ñu ma ngi dem sa yoon président bi mu eh, ma fa ñëw bay bay bay bakkan bu ñam dundu dina ñam dee ki di Ismaïla Cissé ñu gën ko xam muy artiste comédien dëddu woon àdduna ci guddik màggal gi ñu doon ko jébal suñu boroom ci bis bi biir jumaawu yoof ci waccay bu mujj yi ay mbokkam ak jegeñaaleem di joxe ay kaddu jëmele ko ci way de dubilé sama doomu ndey la Ismaïla primaire ba ndëgë ñu ngi and 70 ans ànd nañ ko ensemble ñu nekkee école primaire Faidherbe ba benn bés ñu and man ak moom ñu and jóge ponton mooy booru géej ñu jóge fa jaar avenue Roume di ñëw man ko nañ jaar théâtre du palais théâtre du palais théâtre la boo nga xam ni presque tubaab yi ra ñoo ko doon fréquenté en 1962 ma ne ko Ismaël nañ dem inscrire école des arts mënu ma nañ dem ñu ne man ko man damay inscrire art dramatique mu ma man damay inscrire art plastique man peinture la bëgg a def ñu ne maleresement réussir parce que mënu woon dessiner man nag ma dem yàlla def ma jàll commencé def théâtre bi ñu déplacé affaire bi yóbbu ko Lat Joor mu inscrit ma Badou Cissé dem école des dem Sorano mu suñ ci tàggoo tuddee na ma doom mu tuddee ko doom. wax dëgg yàlla ko moom diine la moom dafa la moom lu jiitaloon ci ci lépp waaye li ñu seq nag mooy ñoo bokkoon métier. yàlla def nañu ànd liggéey lu bare wax dëgg yàlla eh, mu doon ku mokkal métier bu baax a baax a baax li ma siy fàttaliku par exemple ay kii la rek parce que moom jaar-jaaram dafa gudd waaye li ma si mun wax mooy bii nga xam ne eh, ku ñu naan Doura Mané xëy na yéen xamu leen kooku loolu yàgg na moom moo créé woon rôle Albouri bu doonoon pièce bu am solo lool parce que dafa andil Sénégal ndam yu bëri ci ay festival yu mag notamment à Alger en 69 dafa doonoon rôle bu mag comédien bu mag joué ko nga xam ne ñooñu remplacé leen dafa dul yomb moo am bénn comédien mag bu ko remplacer woon ñaan ko Mamadou djum après nag moom Ismaïla moko ko joué vraiment joué bu bu disons bu bu am bu am solo. bi ñu xamante ak légui mi ngi bëgg a yàgg tuuti bi mu ñëwé jàmbalaay dafa ñëw jàmbalaay def jàkka ji jumaa ji muy kërëm itteem yëpp jàkka ji la ak jumaa ji and ak nit ñëpp ci jàmm ak salam am sutura am yar. am teggin yar njabotam ci lool te lepp lo xamanteni mu dox ci ak jumaa ji mi ngi lamb posam di genn diko joxe ba aljuma bi ñu wessu julisina si ñi ak mom ñu ngi wax na ñom ci seen bop biñ leen waxe dañ ñu ñoo jullendo ak mom kon koku nit ku bëgg jakkal liko imam bi sédé légui lu wër la Ismaïla du dem fenn te nga gis lo kurus ci loxom buy dox mu ngi kurusam Ismaïla fu mu ne salaamaaleykum jàkk lay njëkk laajte jàkk moom ak nu mu munti demee moom ci boppam dafa la daan seet si sax nga nekk dem kattu jàkk wala déet mais waxtu julli bu jotee da lay bàyyi ci sa kër boo demul jàkk da dem jàkk ji julli dellu siwaat Aliou Afia di doom ci Ismaïla Cissé di xamle dëgg-dëgg kan moo doon waajuram bu góor. sama papa dafa nekkoon koo xamante ni <clears throat> sama diggante ak moom ñëpp xam ni mu meloon ci man. ba dañ ko doon wax sax da nga ragal Aliou parce que lu mu la wax ngay def te fu la woo nga ñëw lu la def loo nga def donc bàyyi ju mel noonu ci doom defe naa ni euh, kenn kenn kenn dootul wax tolluwaay ba yàlla dogalit euh, ba tey bu ma demee ba nekk ci yenn milieu gi di ci yëngu moom moo ma jox courage bi ginnaaw Serigne Touba bi nga xam ne moo ma tàbbil ci njabootam ndax dafa doon wax ni. bi mu bi ko Serigne Touba feeñoo ñu naan ko xool ko nu mu nduroog Rasulullah bi mu demee Touba njabootu sëñ Touba gi mu fa fekk daf ko ne boo demee sëñ Touba boo koy ñaan bul ko wax may ma ne ko jox ma dañ ko laajee li nga ko ñaan dafa ni li mu ñaan sëñ Touba mooy sama jëmm ji tey moom la ko fayee moom la ko sëñ Touba fayee xëy na tey Aliou Afia gi bu demee ba law ñaanam googu da cee am wàll ju bari bari bari bari bari. mu doon jëmm joo xamante ne nit ñi xam ko ci film mu nekkoon acteur théâtre national Daniel Sorano nekkoon fa moom ak sama yaay ba tey jii euh, yàlla jëlee ko fi mu doon nag lu jafe jafe jafe jafe jafe tenir métti na nag torop ndax nekk woy jur ba moment bii euh, fi nga war a taxawee ngir teral ko yàlla yóbbu ko métti na. waaye am nañ yaakaar bu baax ci moom. lu ko dalee ci mbokk yi xarit yi seede yi benn la nit ku baax ku fonk diineem ñoom ñépp àndandoo gunge kii di Ismaïla Cissé ci këram gu mujj.